jërë ngeen jëf waaye yeewi yi yoon yeewoon ñu bari ci ñoom yeewi nañu leen démb l'observateur nañu mooy leader ak militant yu coalition yeewi askan wi te ñu jàppoon leen keroog àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin doon leen toppee tuumay non autorisée ak turbale ordre public bi bokkoon ci ñoom député Déthié Fall député Mame Diarra Fam ak maire bu Guédiawaye di Ahmed Aïdara juróom benn weeri kaso yu borom dul tëdd mu di six avec sursis la ñu daan Déthié Fall alamaan ko ñaar fukki simple mu di weeru kaso bu mu dul tëdd loolee la ko daan lëkkute nañu gaayu yeewi askan wi seen la ci ay sursis ca la mujj Ahmed Aydara ak Déthié Fall yoon condamné leen waaye libre nañu maanaam ay daan yu ànd ak sursis la ñu leen def bés bi la journée yu ci mu njëkk yeewi mi ngi ci sursis jamono ji mi ngi ñuy xamalit ne kii ne Guy Marius Sagna tey ji ci lañ ko war a atte ci tribunal bu Ziguinchor juróom benn weeri kaso kaso yu ànd ak sursis alamaanu ñaar fukki junni vox populi nee nañu fa la yoon mujje ak Déthié Fall bukki bi matoon Karim Wade Khalifa Sall lise ko nee nañu mi ngi yoo Déthié Fall ne juróom benn weeri kaso yu ànd ak sursis ak alamaanu ñaar fukki junni moom la ko yoon ay awakaam ne jaaduwul ba tax ñu ne dañuy def appel réew meeg tolluwaay gi guddi yu ñu toll La Tribune nee nañu moo tax ba Bougane Gueye Dany gëm sa bopp ak Fadel Barro bu jàmmi gox soloon seenu dal demoon seeti sang bu tedd metti ba tax ñu bëgg mu dakk le mandat nee nañu moo di perturbation yi nar a am ci examen yi war a am ci réew mi te dara war a lu ko dul ay manifestation yu opposition yi di waajal ci réew mi waa sàmm sunu réew di Pape Modou Fall ñu ñu àndal nee nañu lu nit gàtt-gàtt xel war a xam ne ay examen dañoo am solo ci ëllëgu gone yi kon nag kenn waru ko perturber rawatina ci ay caaxaan directeur de l'emploi di Pape Modou Fall ak ñooñam ne ñoo ngi sàkku ci mbooleem ñi séq njàng meek njàngale mi ñu jóg takku taxaw ba dëgër ngir bañ a benn perturbation di am ci xale yeeg seeni examen yi nee nañu baccalauréat technique bi door na démb ci altine ji ci jàmm BFM ngi ñëw examen formation professionnelle yi ñoo ngi ci yoon wi xale yi li ñu soxla moo di ak dal ak sérénité ba mën a def seeni examen ci seen teyug bakkan Amadou Ba ci l'Observateur ministre des finances ba woon xëy na séq waxtaan wu yaatu ak journalu Groupe Futurs Médias bi wax na fa xalaatam ci manifestation yi opposition bi di organiser ci réew mi bakkan yi rot ci ay manifestation ci Sénégal élection législative yi ba ci seen coalition bi mu di Benno Bokk Yaakaar ñëwaat na it ci bilan bu régime mi ngi leeral it ci l'Observateur diggam ak kii di Macky Sall ñu bàyyi Amadou Ba ci l'Observateur te seeti meneen Amadou ci la Amadou Ndiaye la mooy directeur bu hôpital Abbas Ndao bu weesoo loolee mooy coordonnateur convergence des cadres républicains bu Yoff ci waxtaan yu mu xëy def ak journal Tribune docteur Amadou Ndiaye leeral na fa li mu fas yéene ca Yoff nar ko fa ginnaaw la fa ñàkkoon ci élection législative yi nee moo di mobiliser waa yi wër commune bu Yoff biir ak biti taxawu jeunes yeeg femmes yu Yoff yi journal bi mi ngi ñuy wax engagement bi mu am moom Amadou Ndiaye ci wetu duggoon la benn bateau chinois fil ba ñett ci ñoom faatu ca